li ma والوسيل mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ni ñu ko waxee woon léegi rek euh, ñu ngi fii ci daayira Subla Salaam féete fii ci Anvers ci Belgique euh, ñu fas yéene wéyale liggéey bi nga xam ne moo ñu andi fii tey muy liggéey bi nga xam ne émission bi nga xam ne dañ ko door ci safar bi tuddee ko euh, jataayu màggal tey nag ñu fii ci Anvers ginnaaw bi nga xamee ne teewlu nañ kuréel bi nga xam ne moo féetewoo ci xeste yi euh, loolu nga xam ne jàng nañ ko fi duñ def rek taataan ci ki nga xam ne mooy jëwriñu kuréel bi yor liggéey bi muy sëñ Abdou Fall euh, sëñ Abdou du siti bi jële ñu di la ziar euh, di la dalal itam liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy dënnal màggal ak Touba nga xam ne mën nañ ni mooy suñu lépp fii ci kaw suuf tey ñu bëggoon a sàkku tey liggéey boobu nga xam ne mooy màggal gi nan ngeen koy waajale yéen ñi nga xam ne yéen a yor liggéeyu kuréel gi. bisimilah ba kon waa PAM leen isaare bu baax a baax yéen waa si kii isaare ba kàddu yëpp comme ni nga ko waxee noonu rek ci leen table bi mooy fépp boo xamante ne ni ko murid yi yi nekkee ci àdduna sépp di ko defee ñu nit daal nekk ci salaam ci njëriñu Sëñ Abdoulaye Mbacke. ñu tamit noonu lañ ko nga xam ne euh, comme ni kuréel yi nekkee ci ci ci mboolem dëkk yëpp comme ni mu amee Sénégal euh, euh, bi ñu jógee màggal gi weesu rek ci lañ tam la wax di di waajal màggal gi ndax màggal moom mooy li ko sëñ Tuubaa waxoon rek gannaaw màggal moom mooy suñu bis saa bu ñu jógee màggal Tuubaa rek dañuy dañuy dañuy waajalaat màggalu déwén fexe ba lépp loo xamante ne jàng nañ ko ci ay daaj ak xel daaj bu ñu mënti jàng rek rek ñu fexee yeesalaat ko Euh, ngir bisam bi nga xamante ne mooy suñ suñ suñ bis ñun ñëpp te dafa dafa wax ñu sànni ko borom ñu fexe ba wàlle ci ay daaj yoo xamante ne danañu fexe ba répété ko ba ba nga xamante ne bu dee ba ci bis ba danañ ko defee ni nga xamante ne euh, noonu la ko sëriñ bi bëggee kon euh, tey nag li biir sam li nga xamante ne ci lañu am suñu wàllu répétition yi moo tax nga gis kuréel gi sax gaa teew fii am na sax ñeneen ñoo xamante ne war nañ teew waaye xëy na ay gàllankoor waaye ñëpp ci kuréel gi maanaam teew na fi tey ndax samedi la ñuy répété diggante 5 euh, heures ba 21 heures dimanche yi mooy am wàllu prestation yi waaye ku mel nag comme ni lay rek euh, tàmbali nañ wàllu répétition yi ci ci daaj yi nga xamante ne mooy programme bi nga xamante ne moom la ñu waajal ci ci wàllu màggal. waaw euh, jërëjëf Sëñ Abdou ñu gis ne itam ci wàllu taxawaay bi nga xam ne am ngeen ko ci ndax euh, ñeneen ñi léegi am na kuréel bu ñuy wax kuréel tout tànk bu fi nekk euh, ñooñu itam mel na ni am na noo xam ne noonu nga leen di waajale ngir bés boobu. waaw comme ni ñu ko waxee léegi rek moom bi moom mag ña tout tànk yi ñëpp ci lañ bokk te boo gisee dégg ni daaw lañ fi amoon kuréel tànk boo xam te ne lañ ko taxawaloon. ñoom it xam naa ne après dana leen bàyyi ñu ñu def benn prestation ci wàllu benn daaj boo xamante ne bokk na ci ñu def tey jëm màggal bi ndax li ma sant rek bi ñu jógee màggal bi rek ci lañ tàmbalee màggal gi di ñëw ndax moom màggal gi moom lañ def suñu objectif nga xam te ne dañuy fexe ba programme yi ñuy génne yëpp li ci jublu mooy waajalee ko màggal bi après ñoom dina leen bàyyi ñoom ñu wàcceel ci ci xasida yi bu defee ñu xam ne kuréel AVS yi moom ni yeneen dëkk amee ay kuréel mag am fa ay kuréel noonu dëgg yàlla ñoom it ay ay ay jàmbaar lañ doon <laughs> ñu fàttali ne sëñ moom moo kuréel bi nga xam ne euh, kon nag Bichri TV ñu ngi lay sant la gërëm waaye dañuy jàll ci ki nga xam ne mooy euh, Serigne Mamoun Fall moom mu féetewoo ci li nga xam ne moo yor durus bi. ndax ràññe nañ ni at yu bari ginnaaw bi nga xam ne yàlla suñu boroom def na mu tàbbi fii ci Anvers te loolu tam ñu ci ay seede mu initié fi loo xam ne moo di saa su safar rek am na noo xam ne moom wàll woo xam ne moom la féetewoo liggéey ak taalibe yi xanaa nañ def rek jàll ci moom taataan ngir rek mu leeral ñu liggéey boobu noonu la ci daaw ah, waaw euh, sëñ Mamoun Fall a ngi nii ñu toogal ñu gën koo xam ci Fall Kassida UGTV euh, di la nuyu di la ziar di la dalal doon sàkku rek ay kaddu ci liggéey boobu nga xam ne yàlla suñu borom defee nga tàbbi fii ci inversé di ci dox muy saa su ne bu màggal dëgmalee am na loo xam ne yow foofu nga féete ñu bëggoon rek nga indil ñu ay leeral ci ci liggéey boobu ak ba nga xamee ne tàmbali nga ko ba léegi nan nga gisee yokkute bi ci ci ci wàllu woowu. waaw bisimilah ñu ngi ziar mbokk taal bi bi aussi. sëñ si Muxtaar ak Jalla di mu koy ñaan suñu borom gën ko fay yàggal. gën ko fay wéral te lépp suñu si liggéey suñu borom suñu borom kàttanal ko ba mu mën si sa bopp. di ko ñaanal mbooloo waa kër Sëñ Tuubaa si. di ziare aussi sëñ Modou Ablaye Mbacke mi nga xam moo fii si sëñ Touba fii si dëkk bi moom it damay ñaanal gudd fan ak wér si barke xasida yi waaw comme ni nga ko waxee rek moom dañuy faral def bu màggal gi jubsee dañuy bu safar gi tàmbalee rek daanaka dañuy wax ne durus bi day di tàmbali si si si daara ji mooy faral su ko defee dañuy chaque di saa saabu ndajee rek euh, dina fekk am ñoo xam si diggante bi jokkaloo durus yi xasida su ko defee ñu koy ñu koy ñu koy di koy di koy leen si soññi pour ñu gën see gën a am patience ndax comme ni ma ko xasida yi woon dafa bokk si nga xam ne dafa bokk si liggéey liggéey bàggal bi te gis naa ne ak am na ak yokkute bu baax a baax si wàllu li muy daan li daan daataan si mbokk taalibe moo xam si njàngam alxuraan la si njàngam xasida yi donc loolu moom gis nga ne waa daara yi aussi ñu koy dundal bu baax a baax baax si safar bi waaw mm-hmm. loolu lañ ko daan jàppee bu safar bi comme tàmbalee rek ba bis 18e safar donc euh, mën naa wax ne mbokk taalibe bi moom dinañ jàpp bu baax a baax baax si bourse bi. Hmm. waaw ndax chaque seetlu na ne chaque année daal dina am yokkute bu baax a baax a baax te année bi noonu lañ ko fas yéenee euh, def nañ ko daan defee rek incha allah. Hmm. baax na jërëjëf euh, sëñ Mamou comme ni nga ko rek moom mooy wàllu lu gën ci njàngam xasida mi durus yi nga xam ne dañ koy tàmbali saa su ne bu weeru màggal teeru euh, waroon nañoo am jataay it ak ki nga xam ne mooy euh, sëriñ Modou Ndiaye nga xam ne moom moo féetewoo ak kuréelu alxuraan gi moom mooy sëriñ Daouda Sarr wala yàlla dafa def mu am gan waaye ñuy fàttali ne ci wàllu woowu itam tam ñu ngi ci liggéey liggéey bu am solo ndax at mu jot ñoom it ñoo yor li nga xam ne mooy kaamil alxuraan yi ak ki nga xam ne mooy Serigne Fallou Diakhaté ñoom it ñu liggéey boobu nga xam ne saa su safar pero ñoom it danañuy def euh, di commencé di wàcce kaani bi te jëmale ko le 18 safar ba màggal gi ñu génn gis nañ lim bu takku bi nga xam ne wax dëgg fa yàlla amoon na ci te yaakaar nañ ni ren it noonu lañ ko fas yéene taxawee kon mbokk jullit yi mbokk taalibe yi buñ jegee ci lii xam naa duñ def lu digtal leen kuréelu nga xam ne moo nekk fii suñ ci paree nag jàll ci thème bi nga xam ne moom lañ fas yéene waxtaan ak kii di Serigne Seck mu jëm ci ab jullit murit nan lay waajale màggal Touba nan la ciy doxee nan la ciy ba ca bés ba lii nga xam ne mooy màggal Touba lan mooy sabab bi lan moo ko indi incha ci kanam tuuti dinañ ci dikk ñun kon bu ñu def rek di wóyee di liggéey bi jërë ngeen كريم وسيم waxee woon ginnaaw bi nga xamee ni teewlu nañu kuréel bu mag yi nga xam ne moo nekk fii ci Touba Aves bàyyi déglu nañu tamit kàddu yi nga xam ne moo bàyyeekoo ci jëwriñu yi Serigne Abdou Fall ak ki nga xam ne mooy Serigne Mamoun Fall mi nga xam ne moo yor kuréelu duus bi euh, am ngeen it léegi noonu dikkal leen kuréelu tànk yi nga xam ne mooy ñu ngi ci liggéey bi di waajal màggal bi comme ni ñu ko waxoon nag ñu toog ak Serigne Seck Serigne Seck nag di wëllëre ci daayira Touba Anvers ndax moom ma nga fare ba Espagne waaye jamono yu nga xamee ni dëgmal màggal day ñëw fii ànd ceeg mbokki taalibe yi di am ay waxtaan am solo yu muy amal ci daara ji ngir rek fàttali mbokki lan mooy sababu màggal lan mooy mbóot mi ak nan la ci ab jullit war a taxawe loolee moo waral waxtaanu tey bi Serigne Seck Bichri TV ji lay ziar di la dalal di am ak cant ak mbégte bi nga xamee ne nangul nga ñu waxtaan wi nga xam ne ñu ko fas yéene am ak yow jëmale ko ci li nga xam ne mooy màggal Tuuba laaj bu njëkk bi nag rek ñu bëggoon dikkal ñu ci li nga xam ne moo sabab màggal Tuuba lan mooy mbóot mi ak lan moo waral tey ñuy def màggal Tuuba waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi mbokki taal bi yëpp ñu ngi ci nuyoo bi nga xamante ni moo jiital daayira fii Touba Anvers muy télévision bi ñaan na yàlla jëmale ci kanam ndax télé bi islam ah, laaj na bu jafe bu nit ñi laaj xam ndax doomu aadama lépp lu muy def daf koy teg ci xam ndax suñu borom subhanahu wa taala ñu jaamu leen ma sax dafay yebal ay yonent yonent yooyu di ñu gidi di ñu teg ci siraatal mustaqiim dañu woon nan la ñuy jaamoo yàlla naa di suñ ko suivre yonent bi ne taxrifoo nii xam naa tax bi doon waaye itam taxrifoo bi doon loolu nag lépp looy def rek dangaa war a xam loola lan la ak la ko nee nañ borom di ca jublu sant suñu borom subhaanahu wa taala ndax yàlla moo ne waa ma bind rabika fa abid yeneen bi alayhi salaatu wasalaam ne tahaddusu bi nihmatillahi sukru wa tarkuha kufru man laa yaskuru naasa laa yaskuru llah muy cant cant mooy su loo bu la suñu borom joxee xéewal nga sant ko sëñ bi nag bëgg ñëpp jariñu fii ak fañ jëm mu ne kaa leen sant la ma yàlla kaa leen sant la sant la ma yàlla ci murit wala julit ndax bis bi julit yëpp ko bokk képp koo xam ne bëgg nga baax ndax mu nekk xaadiman Moustapha xaadiman Moustapha jëwri ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam am lu mu liggéeyaloon suñu ci tool bi lislaam tool bi nga xamante ni bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko yor Sëñ Tuubaa di jëwriñ doon ko saa yoroon ko bàcc muy bis boo xamante ni bi dafa liggéey suñu borom coono yu metti muy bis bu metti boo xamante ne dafa bàyyi woon njabootam bàyyi ay taalibeem bàyyi ñëpp bàyyi réewam dem fu sori muy Gabon ba tax mu ne xusuur yi xalaat wala ahlu an yi tafaraxa kon bàyyi woon na ay dëkkam bàyyi ñoñam bàyyi taalibeem yi ñëpp jublu leen muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam liggéeyal yàlla ci toolu bi nga xamante ne bii nasaraan bi ñëwoon na pour fay ko la tax mu dem nag suñ ci doon def ndax ci saayir ñu ko sëñ Mouhamadou Lamine Diop waxee jële ko ci net bi suñ Mbàkke Bousso bi nga xamante ni bii caddo yi fiir nañ ci lan fi doon ay dag ñoo soppaliku nekk ay taalibe gëm ko yaakaar ko di ko liggéey tubaab yi tamit fiir nañ ndax colonisation lañ bëggoon tourné ñi lëndëm gëmloo leen seen bopp sëñ bi gëmloo leen yàlla ak yonent ñaari fiiraange yoo xam ne moom daje woon ci moom kalaame ko tubaab bi muy sababu li tax mu dem ci sabab bi ci saay waaye baatin bi moom moo bëgg a dem ndax ina lesina temps dafa biya law laa temps la xum la daxaloo naar ñu aju ci man ñëpp bu la ajuwoon ci man daan dem sawar xam la doxal yi jaman ndax ab jullit moom même bu demee sax li tax mu ne wala mu datan xam la doxal yi janata jullit bu fekkee dafa tooñ du dëkk sawara nee nañ yéefal mun na faa dëkk waaye jullit lu toll ne lañ tooñ lañ koy yóbbu sawara bu paree yàlla ci yàlla musal yóbbu ko àjjana loolu tax mu ne xam la dox bu fekkoon sax da ngeen di dugg àjjana laata ngeen fay dugg da ngeen jaar te sawara loolu nag la suñu borom def mu dem ci géej gi liggéeyal yàlla subhanahu wa taala ba liggéey boobu bi mu ñëwee nag ba nga xamante ni bii ñëw na bëgg ñëpp jariñu ba 1924 am na ñu ne am na la woote ne kaay leen sant leen yàlla ci bis bii nga xamante ni bii lu ma am ci laa amee muy la bisu safar bis boobu nag ay coono mbokk ndax nee na na baxtu ko maha alakadin bada min xablaan ara ridan muhaddida laata muy am xéewal yi nga xam ne moom la nit ñi dëngunu ba tax ñu ñëw jox seen bopp àddina ak alaxira coono yi ay coono moo ko lal fa mu nekkoon nag di Gabon nga xamante ni bii la mu fa nekkee woon mooy jaamu boromam wéetal yàlla ndax lu mu xat xat xat ak foofa lu mu metti metti metti metti da nga gis ci irwaafu na dimb sëñ Mame Lamine Diop Dagana julli na julli korite goo xamante ni bii ku naan ko sami Allah liman hamid yoo xamul moom moo julli boppam ba muy julli sax am na ñaari jébbi xale yi jigéen yoo xam ne dañoo toll ci war a baale maanaam war a toll ci euh, euh, ni ñu ko mën a waxee mesure te mesure gu ndax booba réewum du réewum jullit miinum bu sëñ bi kàbbar naan allah akbar ñuy ree ba ni mu sëlmalee kon fa mu nekkoon amoon na tumuranke bu metti bokk na ci tamit ay tumurankeem ca camp militaire booba ngir xam ne yàlla la woon liggéey ak rasulullahi sallallahu taala alayhi ndax booy xool ci baytu ensurement abra day wax lu mel noonu sama tukki bi dara warulu ko lu yàlla akub yonentum kitaabullahi wa sunnati lati biha ahtami amaana yi xal wala xam doon yi ba mu demee ca Kaaba di julli ba yàlla def néeg ba ko may joxol ko fee sëñ dem Lamine day nettali ne sëñ bee ko nettali ci lamiñu boppam ne ko jël na ñeenti bant bant yoo xam ne da koo samp ca ngir warmaal barabu julli fi musallaaya di ba bay di bi nga xam def na ko fa am na tubaab bu ñëw jël bant ya sànni ne ko laa masjidu una wala lislaama tuurilu an tusida alayna al junda da ngaa bëgg a yàq suñu doon soldaar yii ba am na ku ñuy wax yenn sëy bi ndar ndar ñëw na jàppante tubaab ba ni ko sëñ bi waxee faxaala naasa baynahuma an yatadaraba nit ñi ñoo dox seen diggante kon ñu dóorante fa baqiya min al asri ilal xurubi yataqazamani kullu zalika wa ana akutub ne rabbana axrijna ko wala wacal ko nag si dan ko rek di taamee mawla ba ci la ju mag wala jumaa ci njaareem ak loolu li ko waral mooy ñaan yooyu mu doon ñaan suñu borom jaru joox yi laa xaw bi chanret na bari na xasida yoo xam ne boo ko dee liir tey tumuranke yu metti ak jafe-jafe yu difficile la sëñ bi nekk woon loolu it mu am tomb bi bari yoo xamante ni murit war na ko cee xam fan lay jaar ba xam kan mooy Serigne Touba ak lan la nekk woon nag bi mu ñibbisee nag nga ñibbisi na le 11 novembre 1902 la ko tubaab bi ndax da ko jëloon pour sànq ko ndax ah bi mooy yóbbu ko foo xamante ni bi amul mbokk mu koy défendre ku du yàlla ku du yàlla tudd yàlla ndax sëñ Abdoulaye Mbacke day wax ci waxam ne bi muy julli ci géej ga ba muy ñaan kenn newul amin moom dong la woon loo tax mu ne inal kitaaba a rasula samadi xat rafaxa kulli bi xeyri amadi ni bi xeyri amadi bi loo xam ne du karkar ci loolu ci dama alquran nooyelee képp ku nar a defe dañuy ñëw ku nar a dem safaan ba dem ma kon bis boobu nag bi mu ñëwee nga xamante ni bi suñu borom ku def dara mu fay la su borom subhanahu wa taala da nga gis ni yonent yi gën a sonn muy wul asm ñoo ko jër wa minka wa min nuuhin wa ibrahima wa moussa nga xamante ni bi natt bu ne teg yàlla teg leen ko ibrahima gis nga fi mu jaar ay waajuram gis nga li ko suñu borom wax yonent yàlla isa gis nga fa mu jëg yahuud ya gis nga yonent yàlla moussa nga xamante ni bi jëlee na siif yi ci ak toroxtaange goo xamante ni bi firaw na mi ngi leen ko doon teg ba suñu nag wax leen sax ci alxuraan lii màggal màggal dafa ñëw ci alxuraan wa zakkirum bi ayyaamillaahi inna fi zaalika la aayatin li kulli sabirin ko di ko sant ko fàttaliku loolu tax bi yëpp ndax murid moom mooy képp koo xamante ne bi bëgg nga lu baax xam lan mooy vrai sens du mot mooy koo xamante ne bi sëñ bi mu ñëwee li turux yëpp def nga xam ne kenn ku ne am nga sa mandargam bopp bu dee tiijaan turu jàmbur la woo xamante ni bi ñu sell ñu baax la ñu tegu ci ñoo xamante ni bi ki ko sos sëñ Tuubaa reconnaître na ko nee na fa kullu wirdin yuridal murida li hadratillahi wala yahida si waaxul ultima ila jilaali al ultima ahmad tijaani ak yu bëri wax na ko ci xaajul noonu waaye ñoom ñëpp kenn ko ci ne turoo nga woote am na mandargam moo xamante ni bi sa bopp lay laal lu mel ni comme Israël bu nee banoo Israël siif yi banoo Israël Israël Yaqoob mooy Israël mooy Abdallah ci turu siif mais tey tur day day wo day day wuyoo jëmu jë aw tur xamante ni bi tey aw xeet ñu ngi koy wuyoo boo ne israélien yaa ngi ne ñoo xam ne civilisé tax boo ne tijaan yaa ngi ne tijaan boobu turu yàlla su turu nit la si ahmada yi waaye boobu ci yàlla la jëm waaye te sëñ Tuubaa bi mu ñëwee di woote amul dara loo xam ne mandarga ne loo xamante ne bi day nuru ne lii kat sëñ moom ndax Mbàkke la sant tudd ahmad su ko neexoon mu ne ahmad yi wala mbàkk yi comme ni yéen amee tarixa ci Sénégal nga xam ne da gis aw sant ñu ne ñaseen yaa ngi ne aw sant la ñes sant la wala laay yaa ngi ne même laay sax dañ ko tuddee waaye yeneen yoo xamante nga xam ne mandargam ñee la waaye murit moom am dara lu mu ciy mandal bi boppam nga xam ne bëgg ñëpp jariñu moo tax mu ne muy du laahi woote yoon ni bi suñu borom la jëm ndax mu wax dafa wóor dane sa kartuhoo isqasani di xidmatin maayi sani saa xidmatin fil yàlla gi nga xam moom la doon def ko jaglee muy xadiman Mustafa liggéey yonent bi sallallahu alayhi wasallam yi nga xamante ni bi suñu wa fakk wala mi métti bi ko doon def ak mooy xobi na wala mi mooy métti ya nga xam ne ci métti yam nekk woon yëpp noonu dara ji warul lu ko lu bëgg murid yi ak taalibe yi ak jullit yi mun leen kaa leen sant ma yàlla ndax bis bii kat ni ñuy sant yàlla nag mooy jàng alxuraan comme ni ko xale yi doon waajale léegi ak jëwriñ yi baax yi xale yi mujj léegi ak jëwriñ yi xam wax nañ ko ne jàng xasida ndax xasida sëñ bi julli ci yonent bi la wala istaxfaar te julli ci yonent bi yaa yaa suñu borom moo ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima bi ci des mooy istighfar suñu borom moo ne wa tuubu ila llahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun benn bi ci des suñu borom moo ne tudd yàlla ya ayyuha allazina amanu azkurullaha zikran kasiran wa sabbihuhu bukratan wa asila bi ci des nag mooy xososiye ni ko suñu borom may mu koy mu koy mu koy sant oma bi ñeme tara di ka fa gis ak it bind na ay téere fiq yoo xamante ne bii bëgg na murid yëpp kenn ku ci ne xam la war sa diggante ak sa borom bu dee ci wàllu julli bu dee wàllu yëpp tamit tur yi mu ko turu te solu suqaar ne baat yooyu bokku ne jawhar nafis buri su sell te sawdu nga xam ne te ni bi xale yi na bëgg njëkkante ci ñi nga xam ne ñooy nasaraan yi ndax xale loo ci def rek du ko fàtte ba ilaa yomi din mu njëkkante bëgg xale yi jàng ndax xam ci leen bind ak lu tax mu bind leen ak lu tax muy leen fi comme ni ko sëñ Sall doon defee kooku nag moo ñëw wut bisam le 18 safar ne bis bi kat bu ñëwatee lu ci waaye man ci jàng alxuraan jàng ci xasida julli ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam berneel gan ñi di commencé ci bul yéem gëléem bul xeeb ganaar kon bis la boobu bu tënk kon ci wàllu li ma laaj ci màggal gi li ko waral mooy jàmbaar la joo xamante ni bii kenn mënu mënuñu koo fayal yàlla nañu ko suñu borom fayal. tey na nit ku ñuul ci wàllu négritude bind na ci. ndax bu njëkk te ba ko sëñ bi juddu na sax. ba naan fa lay si yuy jibu sa waajur gis mi. safahatal fata wasool fax mi doon dëgg bu ñu ko taxuta doon dof wala nga dese tiig can si te it gëm li nga xamante ni bi jël murid neen roy leen saxaaba yi dañ doon seen na sax ne fu nit war a nekk war naa mën a góorgóorlu bañ a nga xamante ni bi kat dañuy ñëw ne diine ji ñee ko moom wala ngay jël culture jàmbur di ko roy yaakaar na diine tëddul diine loolu bi sa mi ñëwee bëgg na kuy roy ngay roy rasulullahi sallallahu jël lépp l'islam jëpp nga xam ne boo xool ay téeréem masalika jinaan ñu baax ñëpp lu mel ni imam xasali ñëpp bu dee wàllu fiq mu ne ahimati fiq maliki wa an wa saafi wa anbali bu dee ay sëriñ mu ne masaayixi seydina jilaani wa saadili maahu tijaani bu dee ñaan mu ne yaa rabbana idfa durana bi jaay xayra alamin akram su ma yumraan sam yàllaahu yaa rahmaanu yaa rahimu yaa barru yaa karimu yaa asib mu ne ixfir su noo banaa nga xamante ni day nekk jàmm du nekk mu fat ñëpp lay ñaanal kooku bu wootee màggal ne kaay leen sant li mu ci jublu mooy jullit bu ne texe fii texe fan jëm muy nit ku ñu koo xamante ni bii li nga xamante ne bi moom la doon sàkku mooy nit ki bañ a complexe te gëm boppam xam ne rasulullah sallallahu alayhi mooy ab royukaay ku ne ku ne mën ngaa roy ndax it da ngay xool ñaata siècle la diggante rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu taxaw ne man may xadiman Mustafa wane nag la tax mu doon xadiman Mustafa ndax dana kat ci masaalika jinaan wala tu xasis faddara li xat ala bi si taxaddumi faxat fataj xala isru ba maa uri fatal bu wàqala maa xaaba aman xabloo wasura fatal lu xal imaamul boobu li wal fan lil baabi daal di tànn way woowu murid bu dee war nga ko jël xam ne lu baax moom ni sëñ bi amoon vision taxaw jël saxaaba yi daf leen ne déleen nañ seen bàyyi ci diine jël Rasulullah def ko muy royukaay ma nekk xaadimul Mustafa kon yàlla ne yaa ayyuhal lazina amanu ittaqullah wa kunu ma'a saadiqin maa googu du question que jamono technique mooy pas-pas pas-pas ndax it dégg nga sëñ Basiru bi mu wax ci pas-pas nee na Cheikh Ibrahima Fall nee na ko moo fekkoon fekk ma fi sëñ Tuubaa fekk barabam bàmmeelam dong dinaa ko liggéeyal ba am li ma am nga xamante ne bi sëñ Tuubaa àggoon na ci fi mu toll ci Rasulullah ne biddu yi bu xamoon ne mu daal tiim Rasulullah noonu la def ba doon Xaadimal Mustafa kon pas-pas boobu bu ci ñëwee murid bu ne war nga ci lépp lu ñuy ci ko te yàlla tax ci lépp lu ñuy laaj ci teewaay ak it tarale gan yi def ci bul yéem dara fi ne yàlla nee na wa maa anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu ku ñokki yàlla ñokki kon bis la boo xamante ni bi xam lan la mooy màggal la màggal baatu olof la waaye mooy ak cant ku ñuy sant suñu borom ku ñu koy mooy sëñ Tuubaa moo am ndam ndam loo xamante ni bii kat benn nit ku ñuul mos ko am xamuñ ko ko mas a am cim naar xamuñ ko am ci tubaab xamuñ ko xam ci keneen beneen xel wala en moom lañ mas a gis mu jóge cim réewam bàyyi dëkkam bàyyi njabootam tubaab yi yóbbu ko boo ko bi ñëwee tamit bàyyiwuñ ko dañ ko yóbbu gànnaar boo ko humilier ndax booba na yeneen nit ñu ñu fa nekk ñoo xamante ni bi ay sëriñ leen di woote sëriñ waaye ñooñu dañoo mujj bind ay abiyaat yu boo demee ci sëñ Mat Lamine Diop naan bokk na ci min ajali sohada bokk na ci way mag yi seere yi nga xamante ni wax nañ lii am na lettre boo xam ne Cheikh Sadou moo ko bindoo ne ko ila cheikh ila wa saba mujibuhu sa nii walaa tan sa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam lii maa la ko bind waaye képp ku la mas a ngàññi yow sëñ Tuubaa yal na ko yàlla rëbb man nag bu ma fàtte bul fàtte xeetu yeneen mooy wax loolu sëñ Tuubaa cheikh si yéene wa ay bugoo ilaa ibadi rabbi wa nafr wara fil masaa sëñ si sëñ Cheikh Sidiye na ay bi sëñ Tuubaa mooy jaamu borom moom ci suba yeeg ci ngoon yi ak dimbale mi def loolu mooy ay bi sëñ Tuubaa te noonu ñi koy wax min ajali sohada ñoo xamante ni bi naar yu am xam-xam lañ yoo xamante ni bi sëñ bi bu ma doon wax màggal gi njariñ yi ci nekk su ko murid xamoon dana jëm lépp dana miraas boppam def ci ndax kenn mënu si cee def dara ba yées na màggal gii mooy bisub sant nit nag buy sant danga yaakaar day yàq te sant dafa nekk ci alxuraan ndax it buñ santu ci lii ak adduna dafa jàpp da gis ñoo xamante ni bi tey ji fan yi joxe joxe ci yoonu yàlla dafa gën ku ne xam ne ne fii ku fi def da am ñetti pay ndax ku ne xam ne ne rasulullah sallallahu alayhi wasallam na payam Sëriñ Tuubaa yor na payam suñu borom yor na payam te ñett ko yëpp dana daje ci kon daal lii bis boo xamante ni bii tey nañ koy waajale nag mooy waajal ko ci ay ndax li waral màggal gi moom damay tënk màggal gi Sëriñ tubaa moo demoon ci géej liggéey suñu borom fii may waxe yow nii ba léegi nii damay faral di wax ne liggéey yàlla daa wóor 1895 la jóge woon ci njabootam septembre 1895 ñu génn ko ci léppam génn ko njabootam génn ko ñëppam mu liggéey di yàlla ba fii may wax ak boo demoon ci géej yi wër Sénégal Kayaar ak yooyu neen góor ga demoon géej naa am comme que laaj bàyyi ma nga géej waaye du ñoo sama bàyyi ndax bàyyam jën lay wuti sëñ bi yàlla loolu wuti mën ko am na góor ga demoon Gabon mën naa am bàyyi xam ne sëñ bi yàlla la wuti woon Gabon waaye bàyyi ma mën naa am koppar lay kon liggéey yàlla moo ko liggéey yàlla boobu nag la ko suñu borom mooy jox na ko loo xam ne dina lesi min ilaahi ustu li nga xam ne nàkk na ko suñu borom faddu na ani kaw ni ci groupe bi ni wa fii fustu ci loolu texe kon mbokki taalibe yi mbokki jullit yi bis la boo xam ne yërmande yàlla la ndax sëñ Tuubaa yërmande yàlla ci kaw suuf la ndax it buñ ko amutoon ay am ndax kat nee na ina la si na taaral ak li ma waxoon de bu ay ku ajutoon ci moom da nga dem sawar suñu ñëw mu nit ku ñuul di wolof di sénégalais ah jege ñu loolu nag dëkk bawol sénégalais yépp war nañoo màggal bis boobu mooy bis boo xamante ni bi ci la ñuy tuñu suge bis boo xamante ni bu amatoon tey jii dara du ko jar bis boobu lañ war a waajal bari nga koy waajal bis fu ne mu dem fa te bis bi moo ko amal njëriñ kon nañ koy waajale mooy waaj ko ci ànd ak yéene ànd def ba def loo mënul ndax ñu àndoon ak moom ngay xool fan mujj képp ku mas a ànd ak Serigne Touba muy Cheikh yëpp soo yu tey ndax damay wax ni war nañoo tirer leçon ci ñu doon liggéey Serigne Touba tey jii ndax du waxi daanukat li nga gis rek wa maa shahidnaa illaa bimaa alimnaa wa maa kunnaa mukhbiriin nit mënu seere mu gisul li tax ngërëmal sëriñ Tuubaa wóor Tuubaa rek ngay gisee bàmmeel bu gën dox biti nit ku farse biti ko publicité ko dem Dubaay jënd cuuraay def ñu def ca bàmmeel ba xaalis boo xamante ni yor na ay nit même les war nañoo xool loolu lan ku liggéey ba am ngërëmal sëriñ Tuubaa génn àdduna ñu def ca bàmmeel moom loo ne ni bi ay nit a ngi ciy dund te ubbi bitigam fu ne mu dem fa te ba bàmmeel bi gën ko dox kon liggéey yàlla moo wóor kon nag loola moom ñun murid li ñu ci war a tirer leçon loola ma ngi pas-pas yi nag xaqida yi nga xamante ni ci loolu maa la moo mooy pas-pas bu ñu ko yeesalaatee rek li mu bëgg sëñ na ko am ndax baax moom du fi jóge alxuraan nee na maanaan sax min ayatin amun siha naa ji bi xëy mi naa am islam mu ngi koy faral di wax ni liggéey sëñ Tuubaa nañ ko liggéey ndax ñu wax xawaa jël si la daamoo fi ximba waab loobu maaraamu kon kuy liggéey sëñ Tuubaa waroo jàpp waroo tuuti sëñ Saali mas na ne nañ yàlla boole bi ñu boole ak sëñ Tuubaa soo borom ci ay waxam loolu mi nga wax 91 bi muy doog a naa bi muy doog a doog xilaaf sëñ Abdou Lahad nee na ah ñun de suyuñ fii jóoñu fañ jëm amul kenn ku mas a ñëw fii du ma jàmmal mbiri àdduna mbiri àllaaxira ku ñëw mbiri àdduna la may jà la may jàngal waaye bi mu waxee wax bi dafa am lu ñu ci war a seet mooy kon ni ñu rafetee njort ci sëñ Tuubaa noonu dañuy dañuy dañuy suñu njort loolu lay confirmé ndax dañ ne kon xam naa ne rafet ngeen njort ci sëñ Tuubaa sëñ Abdou bu ne woon loolu baaxul waaye dafa wax ba noppi daal di encouragé ci loolu ne gisuma kenn ku ma sa ñëw fii di ma jàmbat mbir yamal xiyaam ku ma sa ñëw fii mbir àdduna nga may ngeen yaakaar àdduna euh, mi ngeen yaakaar bi dëgg la waaye loolu ba mu ko waxee dañ cee encouragé dafa mel dañ cee encouragé waxut ne loolu baaxul dana ku ñëw fii di ma jàmbat ku ñëw nag oto bu kii yëpp wala yooyu li nga fay wax yu jàmbal waaye mbiri àllaaxira kenn mosu ko jël jàmbal kon nag ki lay jàppal nga xamante ni bii leer kii defal na loo xam ne kenn mënu lu ko defal ndey mënu lu ko defal bàyyi mënu lu ko defal booy def ci moom da ngay def ba def loo mën kon màggal gi dañ ko préparé ni ñu koy préparé mooy préparé ko ci ay xasaay comme ni ko xale yi defee léegi ci alxuraan ci xasida ci barndeel gan bi gan boo gis bu boobaa nga jàpp ne kii sa gan la bu fekkee mu néeg la nga wàcc jox ko bu dee bàggal ku la mag nga ne ko toogal wàccal sax xëy na naa yokkal kabi wàccal kabi naa yéen ñu sax yi di dimbalante tey gën a am ndax it ba mu ko sosee wóote ko woon ne kaa leen defe ko benn paas sàngam déedéet boobu murid yi dañ ko doon defee fu leen neex ci àdduna bi sëñ Mor Moustapha radiyallahu am mu it loolu di wéy loolu di wéy ba sëñ Fallou ñoo xam ne barke day tax nit ñi duñ gisee loolu day am fi ne barke day tax nit ñi duñ gisee baraana ñoo xamante ñi ngi ci yoon wi di sëti sëñ Touba wala ñu ay seexam dañuy gëj a gisee ndax kenn ku ne la nga nekk kenn ku ne la nga nekk yaa nga fa sa borom di jaamu yàlla waaye loo bëgg yaa ngi koy am barke day dee waaye nag sëñ Fallou bëggoon nag ndax dañ ne force dañ sax bu fekkee da nga julli jumaa ci mbooloo ak ki julli ak ki ci këram da julli sa kër julli farata ak julli ci sa kër ne kooka rawe na ko amee na ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay daraja ki nga xamante ni moo julli kon yàlla dafa bëgg ak jamaatu rahma mbooloo dafa am suq dafa am doole léegi mbooloo moomu nag nga xamante ni bii yërmande yi ci nekk comme ni nga xamante ni nga xam ne man maa war ne man fi ku ma xam Belgique daayira tax ma xam ku ma xam Belgique daayira ndax ñun ñëpp ay murid lañ ma ngi doon toog suñuy kër bi jàng xasaay nekk ci euh, jàng xasaay jàng alxuraan te teewul nekk murid waaye lii dafa neex bi ma ñëwee ci daayira bi kenn doomu laa fi xam-xam ne mas naa koo xam te day rey tax ma xam ko muy Moustapha Amar bii toog Afrique Sud laa ko xam waaye ci ñëpp fii laa leen xam ne waaye tey dem na ba ak mbokkoo moom fii ñëw xamma fi kenn ci nga xamante bi wa mu'minin muxlisina saalihin nga xamante ni bi loolu bu ñu ko toppee tey bañu nekk di ay dëddoonte xiiroo ngaayeg yooyu te yàlla tax loolu dañuy am force boo xamante ni bi tey jii loolu tax sëñ Fallou na ñu ne 46 la woote ne kaalim fii di waaye màggal moom Touba la ñu ko fay defee ko fi woon waaye da ngay xool bi bi wooyee njariñ ni ñu gis ñun am na ñoo xam ne ci lañ am ay soxna ci lañ ngolante ba am ay soxna am na ñoo xam ne ci lañ gis sa beneen xarit boo xam ne bépp jullit mu ñëw màggal ci xam ne sëñ Touba Bamba mas xam la mu ñëw doonu murit wala koo xam ne koo xamante ni bi du woon julit mu ñëw nekkul julit wala koo xamante ni bi beneen tarixa la bokkoon tarixa bas bu nekkoon sa baax na waaye sëñ Tuubaa li ko waral mooy Tuubaa gi di bi murit yi amuñ benn bis bu gën a màgg bis bi ndax lii daj na tabaski korité yëpp bu baax la sunna la lu baax la ndax ku ne xam ne ne tabaski li ko tax a jug mooy yonente bu fi ñëwoon tuddoon Ibrahima yeexoon am doom lool am nañu ne 120 ans la am doog am amoon soxna suñuy wax Hajara Hajara moomu tamit am juróom-ñeent fukki at wala sarata doog a am doom Ibrahima di xaritu yàlla subhanahu wa taala ndax Ibrahima xaritu yàlla la xalilulaay loolu ñu koy waxee. bi nga xamante am na doom ji ñuy wax Ismaïla bëgg ko nag suñu borom daa fiir ndax bëgg gi mu bëgg doom ji ci bëgg gi mu yàlla yàlla na ko rendi ko di xool ba xam fu dëggam toll doom ji ne ko ci farma tombul surtout junni incha allah dina saa bi rendi ma ba mu koy rendi suñu borom indi tabaski jullit bi war cee jàng lu ñu ciy jànge mooy ah yàlla kat daa fiir kenn waru ko bokkaale kenn doom yi daa war a dégg ndigalul waajur bàyyi daa war a nangu ndogal bi yàlla ciy def lépp làmb waaye màggal day daj dafa am jaamu yaakaar na làmb la ndax nit mën nay julli nii waaye julli gi day am yoo xamante ni bi ndax kat ngërëmal yàlla dafa yombul am da seet ne nit dana am ngërëmal yàlla waaye ni ñu koy amee fu ne mu jaar fa waaye liggéey ku liggéeyal yàlla am ngërëmal ku am ngërëmal yàlla moo gën a te nit mën naa am ngërëmal yàlla ci liggéey sëñ Tuubaa kon nag foofu dañ fi am loo xam dañ ko fi leeral mooy képp koo xamante ni bëgg nga am ngërëmal yàlla da nga ñëw ci sëñ Tuubaa ndax ngërëmal yàlla ku ne xam ne ne dem xel ko wala ku ñëw sëti sëñ Tuubaa des da nga xam ne kii kan mën ci sunna mën ke la sëñ Tuubaa nekk boo nekk ak moom mu gërëm la wala nga jox ko dara rek naa ndax yàlla ku ne xam ne ne bari na ah comme li ko nit ñuy waxee kenn ku ne jàng na indi sam jàng ñuy jóge fee ñuy jóge fee ñuy jóge fee waaye sóortul kan ku ko jàng diggante Xodar ak musaa war a tey ci lu bari ndax ku ne xam ne ne Xodar ak Moussa bi ñu àndee li Moussa doon li Xodar doon def tëppoowul ak sare bënn gaalu jàmbur tëppoowul ak sare ren di doomi jàmbur dëppoowul ak sare leen li nag ñàkk a fay mel ni dafa ñàkk a fay dal te lépp suñu borom moo ko digal ndax kat xel mu ladun yi dafa am xam-xam yoo xamante ni bii bokkul ak sariya suñu moo ko maye ndax yàlla lu ko neex lay def faal du ni maa yuridu ndax kat dafa gudd duñ ko taawil mais da ngay xool ne Moussa ak Xudar bi ñu àndee ci gaal bi mu bënn gaal bi aqraataha li tuxriya ahla laxad jël say ak imra ba mu reyee xale bi mu ne ko laxad jël say ak nukuran mais xool ne baal gi ko moo gën ndax bu ko bënnoon bi nangu da ne ren gi xale bi xale bi bu doon faral ay am ndax xale bi bàyyam ma yaay may julli lañu woon mu fa sirone yi noonu lañu ko waxee a demee ci tafsir yi xale bi bu doon fan du baax ndax bu doon fan yaay man ndeyam bëgg nañu ko bëgg koo xam ne dañ leen indi ci kéefar gën nekk ndax innamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna am na doom yoo xam ne ay ko rendee nañ sax faar dañ ciy bind kaafir laa yu'minu billaahi abadan ba laa yu'minu bi bi dee na ci ndaw mën naa dem àjjana ndax ku lu moo leen yollu ala fatin fa abawaahu yuhaawidaanihi kaafiran aw majoosan ndax bi masalagut waaye ko ci nga xamante ni mën naa dem sa àjjana wala mu dem laxlaas waaye da xool ne tey bu doon fan gi avancé wu ko ndax bu bu doon fan naa dem sawara mbooloo mën nañoo dem sawara ndax yaay mag bàyyam nee nañ sax yaay mag bàyyam jur nañ benn doom bu jigéen boo xam ne may nañ ko benn yonent bi naan Yunus ibn Matta ba ñu bari mbooroo dem ci àjjana kon xale bi gàttoon fan moo gën mu gudd fan waa man ji daal miir bi tamit dafa mel ni woccoon bu bu daar woon noonu rek du bënti ñoom loo tax ku dal jubbanti ko mais xam-xam yëpp noonu tey dee xool tey ci sariha nit ñaa ngi fi digal loo xam ne xamuñ ci dara sëñ bi dane alamani laahu alim bi maa na dulóo dafa am xam-xam yoo xam ne ci suñu borom lay jógee li koy joxe mooy ragal yàlla ragal yàlla boobu ne dafa yombul wala taqwallah wa yaxalimukum dafa am loo xam ne sëñ bi lan daj ba am ko lu metti la lu sonn loo tax suñu borom jagleel ko yenn xam-xam yoo xam ne ak yenn sañ-sañ yoo xamante ne bii kenn fekk ko ci ñun murid li des nag mooy ñu góorgóorlu bi yu mel nii ñu wutee muy occasion boo xamante ni bii kat nit mën na jaamu yàlla jaamu yàlla yoo xam ne mën naa am daj la daj la ndax yépp suñu borom mën ngay jaamu te fekk la ngay jaamu mën naa am yàllaa xam ndax it ku ne xam ne ne imam Malik imam Malik rek anhu nee nañ bi mu fi jógee am na nitu yàlla bu ne mu def ñaan yàlla xool imam Malik ban àjjana la ko su borom yi teree bu mu julee ñaan suñu borom tëdd nelaw suñu borom woon ko imam malik radiyallahu anhu mu xool gis imam malik nekk ci àjjana yi gën a kawe ay jigéenu ko di ko wayale ka tëggal mu toog di njoowaan mu laaj ko ne ko yaa imam malik lan indi fii jàngale mi ngi doon jàngale wala xam-xam mi ngi doon tasaare mu ne ko déedéet sama ma damm woon yërmande ci moom ba takk tànkee ci la ma yàlla yërmee mi ndeke nit man nay def dara loo xam ne xamoo yàlla nangu na ko waaye nag noonu liñ ci bëgg wax mooy liggéey sëñ Tuubaa day daj du làmb mhm. kon liggéey sëñ Tuubaa day daj boo ko sellee sa xol rek te sëñ bi rek tax daray am dina taxaw ni da nga daal di daj mhm. ndax gis nañ ñu doon liggéey sëñ Tuubaa tey lañ am loolu tax boo demee seen i bàmmeel yu leen di siyaare seen i sët fu ñëw ñu leen raamal ko sukkal sëñ sëñ Tuubaa gis nga ko kon nag lu mel noonu li ko am mooy ngërëmal yàlla kon nag occasion la ci bépp murit boo xamante ni bii màggal bi bu ñëwee muy sa weer woo xamante ni boo ko doo ko yemale benn weer yëpp ko jëra góorgóorlu ndax moom góorgóorlu nekkul ci weer wu waaye nag weer bu ñëwee nga xam ne spécial weer la ci yow moo tax nga gore mooy weeru nit ku ñuul mooy weeru nit ku nit ku mooy weeru Sénégal mooy weeru l'islam mooy weeru murit ba nga commencé comme alxuraan ji xasida yi yéen yi yéen télévision yi a ngi ci vraiment ndax lépp loo xamante ni bi lu loo xamante ni bi koo xam ci yoonu sëñ Tuubaa ngeen dem wax ko loolu lu baax la am solo loolu yéen a ngi ci ak it xasida yi nit ñi bàyyi ñi ñëpp fi ndoolu fa dëkk fa la ñëw yow ci weer wi ak lu weer lu ñu weer wi tamit waaye weer wi moom spécial la ci yoonu murit safar bu ñu jotee le premier safar loo mën ci berne ko am na ñoo xam ne ci la ñuy commencé xeeli am na ñoo xam ne ci lañ commencé togg ay ñam yàlla boole ñu ci yool ndax ku ne xam na ne ah suñ bi moom li mu mooy ñëpp dem àjjana bëggul kenn dem sawar sawar daal ko fa dem yaa ko teg si xam naa sa laaj boobu bu amee tey laaj moom ah daanaka leer la mooy maanaam li nga xam ne ab jullit noonu la war a waajale màggal noonu la ci war a taxee doxee ci ba keroog mu yegg ci bés ba laaj bu njëkk bi mu doonoon li nga xam ne moo sabab màggal xanaa kañ duñ def rek lu dul euh, tàllal taataan kàddu yu mujj ngir rek euh, soññe bi nga xam ne dina ko def ci nga xam ne moom lañ dëgmal muy màggal waaw xanaa soññe bi mooy tàmbale ko sama bopp mooy waajal ko ndax li ñu koy waajale mooy waajal ko ci xasiide alxuraan alxuraan ndax sëñ Tuubaa dafa joxe njigi ndigal ne kullu muridin bi yaros fal yu dib tilawatan li xayri zikri ak rusib wallazi man iktafa ci jasmu wallazi man sabata wala mu yaltafita bari na lu mu ko jox nee na sax képp ku ko mu ne fii azarabul wala addu xokkatan li lu wom yi kon sëñ bi fa mu tegoon alxuraan kenn mësuma teg alxuraan kon nañ ko waaye léegi comme li ngay wax léegi de am na ñoo xam ne bu safar bi jógee commencé nañoo jàng alxuraan commencé koo jàng ko jàng toujours nag am na ko sax ba ci déwu ku jël ku ne am na dog boo jàng ci alxuraan gis naa sax nee na naafila ak ñaar bi nga xam ne nee na képp xam ne mokkal nga alxuraan ngay naafila nisfu rakka bu ne nga def ci nisfu nisfu mooy genn wàllu isib alxuraan benn fukki isib la kon am na téeméeri nisfu ak ñaar fukk yaakaar naa nisfu moom la digle ñu koy jàng ci julli gi kon moom alxuraan mooy borom alxuraan nañ ko waajalee alxuraan li ci nag mooy waajale ko tamit ci poos yi ndax lépp lu jag poos a koy it am nay moom wa man yabxal fa innamaa yabxal an nafsi ku sa bopp def fa man nakasa fa innamaa yankusu ala am loo xam ne fii ci wër la te li ñu wëraleeg sëñ bi ndax it àjjana mooy jaay yàlla mooy jaay àjjana yàlla moo ne àjjanaa ngi maa ngi koy jaay jullit bi na ko waaye nag yàlla jaay bu yëfër inna allaha istara min al muminin yàlla day jaay àjjana kan lay jaay jullit jaay ko yéefar ina ba islaam leen moom nii lu ko yàlla jaayee an fa sumu waam wàllum jëmmi bopp sa alal dafa neex ci ci ndax da ngay xool bu njëkk amoon na jihaad da ngay sa kër la yonent bi dafa soxla ndax boobu naafiq yi ak yéefar yi bëgg nañu lislaam fay ba mu ne yaa ayyuhan nabiyyu jaahidil kuffaara wal munaafiqiin am na ay yu bari yoo xamante ni bi waxtu loo ay saqif tu moom wax yow mi ay saqif kon jihaad boobu nag amatul ndax léegi jihaadu si moo fi des yonent bi salaa salaam nee na al mujaahada man jaahada nafsahu kii jihaad mooy ki jihaad ak léegi nag jihaad ak sa bakkan moo fi des mooy nga jihaad ak sa bakkan ci lépp loo xamante ni bi tey sa alal la ak it loo man teg ci moytu tere yàlla yi nekk ci ndigal yàlla yi comme ni ko sëñ Tuubaa waxee wa kullu man zaama ani rasaa'il fa innahu yaftaru bil fadaa'il woor ci caay-caay yi donc ci ngëneelu yàlla yi moom la yàlla ne waa man xaafa maa wa na'a nafsa anil hawaa fa inna yàlla li muy jaay mooy àjjana ku mu koy jaay mooy julit dina laa israamil moom am sumu am wàllu lu ñu ci teg dara lahumul jannat yuqaatiluuna fi sabilillahi dégg nga yuqaatiluuna fi sabilillahi fa yaqtuluuna wa yaqtuluuna te saxaaba yooyu xeexoon Badar nga xamante ni bi moom la sëñ Tuubaa naan dégg nga dégg deko naan ni ma di jaalu loomu ma jaalu nit lu ma naan waxtaan ak naa góor bu laa bëgg góor lay wëndeelu déedéet sëñ Tuubaa góor wëndeelu tukki de loolu sàcc yee ko dàq ñëpp waxul loolu de nii ma amuñu morom wala nii ma amul morom wala nii ma baax na mis ma di jàpp mooy góor ñoo ñee muy saxaaba yi loolu ñaa nga leen ma jaaloo cëri dunya nii loo da leen a rey ci yoonu yàlla wanaa loo ñoom ñu rey waxtal an naa ci waxtu coono ñoom la saxaaba yi la sëñ Tuubaa wax gaa yi naan góor balaa mat góor lay wëndeel déedéet gaa yi sàcc daa ko wëndeelu fépp fu ne ñu dem fa te amul yàlla amul ñeneen wëndeelu boobu wëndeelu boobu waxul loolu maanaam dana ñoom am nañu ay cëri duun ñoom nga xamante ne bi Ousmane bu nu Affan la nga xam mooy goro yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Tuubaa mi ngi ci gis bi Seydina Ousmane ku la xaswatul Tabuk nga xamante ni xaswatul Tabuk Ousmane dafa joxe joxe ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko bis ni na saxaaba yi demutoon yoo xamante la alxuraan wala salasat la si na na um na waaye koro am na ñeen fukki fan yoo xam ne seen seen soxna sax yonent bi ne leen leen seen i soxna yonent bi demee bu leen kenn nuyu kon léegi dañ ci jàngale ak julli wërta yaafus kon Ousmane ma doon joxe nee na yonent bi julli na gee ne guddi gi Ousmane laa koy jox di julli ñaar rakkaat di sëlmal ba fajar di ñaanal yàlla Ousmane aw yiw te Ousmane ñu ngi ko xam ne ci joxe kon joxe boobu nag nañ ci lu nga xamante ne bi yoon wi yoonu joxe la ku joxe jariñu joxe nag mooy fekk li nga xamante ne bi joxe du màggal kese lañ koy defee màggal ci la ndax màggal mooy li nga xam moom la muri wala waaye nag képp joxe am na sax bu ñu ne euh, ku baax daan wax na ñaar bu ñuy xeex gën a lay faral ndax koo gis am na ab ab ab joxekat du ngoon bu ragal am nay moom day calculer lépp weer wi dee naa yi bari na ñu mel ne loolu ragal waaye yàlla moom képp ku joxe waxuñu ko joxe lépp nag waaye képp ku joxe su borom moo lay kon nag ko waajal ci jàng alxuraan ak xasaay yi ak it joxe joxe ca lépp loo xam ne dana jag rek ndax ne da ngay gis koo xam ne aw nag lay rey bu déwénee mu man ñett bu dee mu mën ñeent bu déwénee mu mën fukk ba yàgg muy rey yi gëléem lépp da koo teg ci can sëñ Tuubaa kon nag nañ waat xam ne saaba ya sëñ Tuubaa ñoo roy ko wax ñu roy leen dañoo joxe joxe joxe ba nga xamante ni bi tey ñoom bu daan joxe duñ ci xool dara joxe lépp Omar xaaj ak lam joxe joxe lépp yonent a yàllaa ko yonenteem sëñ Tuubaa ñu roy joxe lépp miraas boppam joxe lépp na yàllaa ko yonenteem te ñooñu ñun la sëñ Tuubaa ñu wax ñu roy leen ah nañu xool suñu bopp sans bopp bi laa koy commencé bàyyi nañ jël xéewal yi Bàmba yi indi yemale ko seen kër tey fàtte Tuubaa nindi na ko sëñ Musaa Ka waxe woon kon nañ ko waajal ci joxe ndax mbir mi jag ndax saal yi ndax fii kat Europe màggal fi bokk la màggalu Sénégal ndax Sénégal kat mën naa am man naa kër yaa ngi yëpp nga fa may fii lu yëpp saal saal ku ne xam ne seer na ku ne xam ne ñam yi daf yi la gën a seere ndox yi dafa seer su muy si dafa seer ndawal gi dafa seer yu mel noonu yëpp li koy jagal mooy joxe kon nag nañ joxe ba mën a jënd saal ba mën a yëpp noonu loolu rek ni daal ngi soññ suñu mbokki daal yëpp di soññ ji yëpp xam ne daal bis la boo xamante ni bii lu ci waay def tey na nga xool nag sa ba xam bu déwénee doo yokk bu fekkee yàlla rek ak sëñ Tuubaa na nga yokk ba yéen nga yokk ba sëñ Diouf loolu laa jamono mën ci yokk baax na jërëjëf eh, sëñ Seck eh, jërëjëf eh, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ngi sant waa daayira Touba Anvers ginnaaw bi nga ci émission bi ñu tuddee waajtaayu màggal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant aussi ki nga xam ne mooy seen Bassirou Diakhaté féete woon ci wàllu caméra yi